asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV di la jaajëfal bu baax di am contentement janoog yéen chaque jour mbégte bi mooy di leen indi li gën a fas si boobu xibaar ci noonu damay jël nuyoo bi jiital ci borom kër gi di Pape Thialis Faye di ko nuyu di ko ñaanal jàmm damay nuyu ñu ma feggoon daal di àndandoo jukkil leen di gën a mbay nuyu naa la. jërëjëf ndey Mbacke fay naa la nuyu bu baax a baax suñu xarit ji nga xamante ne bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV comme niñ koy defee saa su nekk rek ñaanal leen jàmm ak salaam di ñaan bu baax baax yàlla na yàlla dolli jàmm suñu réew sotti ko ci àdduna bi yëpp barke Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul. Assane nuyu naa la. Ndeye Mbacke de eh, fay naa la di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaa mbégte jàkkaarloo ñoom pour indi leen li gën a fas ci yenn kaayu lamb contre ki nga xam ne mooy Bombardier le B52 de Mbour le 31 juillet mu ngi jëm féete France war a waajal combat Mbaye Babacar. gannaaw ba mu déparé démb fële fii ci dakaar yegsi na France tey ci ci suba gi yebbi na ay bagaasam wàcce na li nga xamante ne bii mooy ay dëbësam ngir mën a waajal combat bu mag boobu war a dox ci digganteem ak Bombardier champion bi dëkk fële ci Mbour Géej dëgg la Mbaye Babacar 60 jours maanaam deux mois la fa euh, kii di Balla Gaye war a am moom nag si INSEPS la jëm INSEPS moom mooy institut national du sport de l' expertise et de la performance nekk ci France gaa Balla Gaye nag bu fa demee cinq experts ñoom ñoo koy accompagner ci entraînement yooyu dina am benn expert en boxe. en musculation en nutrition maanaam ci wàllum lekk am na natation am na lutte également lutte gréco-romaine euh, cinq experts yi ñoom ñooy ànd ak moom ci entraînement yi lii lépp pour préparer combat bi nga xam ne nii war na dox ci digganteem ak Bombardier le 31 juillet bi di ñëw incha allah. mooy loolu nag léegi moom nekkatul double S mais triple S comme ñetti avance daal di jël moom Balla Gaye numéro 2 contre Balla Gaye numéro 2 ba léegi kii di Boy Niang ginnaaw bu fa caay say génnee daal di koy àddu dem na seeti promoteur ba Baye Babacar. dem na seeti promoteur ba wante li ñu mën a nemmeeku mooy kii di papaam. ñu koy woowee dégol nekkoon mbër ci làmb ji nekkoon champion bëre ba bàyyi bëre doom ji jël li nga xamante ne bii mooy jàjj yi takk ko muy Boy Niang dégol moom ba ba combat bi taxawee bu léegi kenn déggu ko mu wax dafa boole lii di patt ak organisé dugg ci rek ne patt pataaral waxul dara boobu ba léegi asam dégg la Mbaye Babacar journal suñu làmb moom moo ko xamee nee na après bi pàttaali saway dafay benn sortie artu fi mbër yi Boy Niang ñëw na fi seet ci ko ci guddi gi pour ñoom ñaar ñu waxtaan ci wàllu date bi mais également lépp di wàllu jëm seen seen diggante même Leewtoo point net également bindu ko le jour ji après Roda après ñaari parti waxtaan nan xool euh, naan la ñuy trouver benn solution boo xam ne nii boo combat bi dina am le plus rapidement possible. mooy noonu nag ginnaaw ba mbëri dëkkuwante am combat dafa mel ni combat mbay Babacar léegi ñaar la promoteur yaa ngi dëkkuwante ginnaaw ba Pape Thialis Faye génnee daane ak nga xam ne mooy Gaston ne ko il n'est sa nature. kër yi Gaston Mbengue daal di xëy def réplique daal di tontu Mbaye. mu yëgle mooy kii di Pape Thialis fi mu war a jaar pour dugg ci làmb jaaru fii bi muy ñëw ci làmb ji jaarul fi nga xamante ne bii fi la war a jaar Assane maanaam. duggeewul ci bunt bi nga xamante ne bii moom mooy bunt bu yaatu bi dafa prox ndollu làmb dafa neex rek mu ñëw wàll si dëgg la mbay Babacar comme ni naa waxee ton rax comme ni nga ko waxee noonu la Gaston de ne Pape Thialis Faye mbapatul dafa xëy rek tëgg grand combat donc jaarul fii promoteur yu ndaw yi daan jaar sonul ba muy démarré donc dafa ñëw rek ak ci ci kaw dëgg tëgg ay grand combat looloo tax daal euh, ñu naan ñu naan tontu du farax kon gason tontu boobu la indil Pape Thialis Faye. Uh-huh. tey Mbaye laa mujjee neex na géew gi ubbi na mbër yi fan la ñuy bëri. mbër yaa ngay promoteur yaa ngay. waaw ma nga noona. du mën a yomb ginnaaw moom mi jaar ci portu mag bi daal di mbapat suñu papa Gaston meeg ba mu taxawalee. Gris Bordeaux Balla Gaye numéro a mooy diggante mu nekk ay combats yi nga xamante ne bii macha allah kii di Gaston Mbengue ba léegi nekkul promoteur ba nga xamante ne bii moom nee na du xaar. moom la moom moom nee na mooy borom fast track nee na daal fast track moom la jël muy slogan bokk ko kenn nga xamante ne bii lu mu joxoñ rek incha allah day fexe mu dagg. dëgg la Mbaye Babacar noonu la ko journal bi waxee nee na Gaston Mbengue en mode fast track lu tax mu wax loolu mooy naa ne nee ne Gaston tëgg na euh, combat bi di war a dox ci diggante Gris euh, Bordeaux ak Balla gay Boy Niang 2 gay Gaye nee mi ngi waxtaan waxtaan également pour euh, am date bi wala combat bi nga xam ne war na dox ci diggante Ama Baldé ak Gris Bordeaux nee na mi ngi ciy waxtaan bu baax a baax te fas yéene na tëgg ko nee na tëgg na benn combat le 4 avril passé tëgg na le 26 juin bi war na tëgg Sa ak Moussa Ndoye le 31 juin moom la date contre Euh, Balla Gaye ak euh, kii di Bombardier waaye mi ngi waxtaan également pour mën a indiwaat Zoss ci làmb ji. mu ngi noonu nag ba léegi la Zoss la ñuy desandi ginnaaw ba mu nekkee war a ñëw def li nga xam ne mooy ci biir arène bi. kam bëgg nag mooy nees Mbaye Babacar. li waral mu bëgg nees Ndeye Mbacke xam nga Zoss dafa bëgg coow. Zoss mbëru ambiance la mbër la ma nga xamante ne bii moo fi andi woon slogan boobu ñu naan soos soosaat capp cappaat ñam ñamaat mu nekkoon mbër ma nga xam ne dafa ñëw rek participer dafa ñëw rek journaliste yi dar ko mu ñëw rek bokk nee na nag li tax mu soxla nees ci la ñëw tey nee na bi muy bàyyi bëre nees moo fi nekkoon yor micro yi di ngal ngali rek di wax. nee na dafa bëgg ñu jox ko ko mu régler comptam bala muy jàll ci keneen. dëgg la Mbaye Babacar tëj laa mënu zos loolu la tëj laa mënu nes loolu la sos bëgg looloo tax mu ne na ko Gaston jox nes mi nga xam ne nii bi mu bàyyee làmb moom rek moo nekkoon ci rajo yi wala ci télé yi di wax pour que naan ko euh, tàppel la warul retraité ci nekk jeune donc ñoom ñaar war nañu daje léegi nag comme ñëwaat na ci làmb nee na na ko Gaston jox ñoom ñaar ñu daje waaye sos yemul rek ci loolu wax na également ci relation ak gason ndax nee na moom moo ko njëkkoon a jox ko million ci làmb ji te boobu 1 million la daan fayu xëy rek Gaston jox ko 20 millions te loolu marqué na ko bu baax a baax a baax wax na également que ne bu agsee fii ci làmb tey c'est grâce à Baboy ak Eumeu Sène. mooy noonu nag jii lépp war naa leer. gannaaw ba ñu mbëkkantee ñoom ñaar ci benn dëkk mbëkkante ci benn date wante mbëkkante ci benn parrain mbëkkante ci benn mise ñoom ñaar ñu jël làmb ja tuddee ko Matar Ba Matar Ba woon na leen tey jii foofu ca ministère ngir Euh, waxtaan ak ñoom ku ci nekk mu teg la fa nga war a teg wante ku ci nekk mu ne la lii nga war a am ku ci nekk xam fan ngay féete Assane incha allah bu ci yàlla àndee. dëgg la Mbaye Babacar waxtaan woowu tey la ko Matar ba sàkku ci Jax ak euh, kii di euh, Jamaïcain waxtaan bi nag à partir de midi lay démarrer comme ni nga ko waxee Jax dafa tëgg benn combat le 16 foofu ci Fatick musée va 3 millions ak indi fa moom Ngom ak Mbaye pour ñu tëgg gala ñu animé gala waa même chose la Jamaïcain def ndax la Jamaïcain la même jour la ko jàpp la même stade même parrain ak même ay animateur donc loolu il fallait que Matar Ba euh, woo leen pour xool ban solution lañ trouvé ba kenn tëgg keneen ki bàyyee ko morom date bi. kon daal incha allah bu ñu génnee ca ndaje moomu incha allah danaan xam le 16 mai kan mooy tëgg foofa ca Fatick drapeau Matar Ba. loolu moom dina leer mais nag euh, favori instant yi ci Jamaïcain la gën a a gën a féete puisque samedi bi passé dem na fa euh, am na euh, date datu kii bi CRG bi jox na ko ko mais également fay na location stade bi donc daal yaakaar naa finalement ci moom la nar a mujjee. mu ngi doon nag ginnaaw France ki nga xam te ne moom xale parcelle ba ñu tuddee ko suñu njaago or bi. la nga xam ne ci journal nag mooy li tax mu bëgg daal ki nga xamante ni mooy Tyson 2 Mbaye Babacar. ndax nee na Tyson jàmbaar la. mbër la ma nga xamante ne bii ndaanaan la ci biir làmb ji ñëpp na ko ràññee nañ ko mën naa bëre am na fulla am na fayda te xam na bu daanee Tyson 2 fi ko combat bi mën a yóbbu asa dëgg la Mbaye Babacar Franc moo wax loolu nee xam na bu daanee Tyson 2 euh, fan la ko victoire boobu di yoon di yóbbu ndax nee na Tyson 2 mbër moo xam ne nii mbëru guerrier la mbër muy bëre la te moom am na euh, da koy neex muy dajeek genre mbër yooyu waaye yemul ci loolu wax na également bi nga xam ne nii souvent dañ ko day bëgg di dem di participer ci gala de lutte simple yi pas par pour gagner xaalis rek mais également pour gagner expérience ak compétition. muy noonu nag ginnaaw bu bëree nga xam mooy Gris daal dafay lajj kii di Pakala mu ngay delluwaat mbay baabu. waaw ku ne xam na ne duggoon na Fass jëlee fa défaite wante li muy defaat mën nañ ko tuddee risque ndax bëri woon na ak Pakala Pakala daan ko. mu bëri woon na ak bëri woon na ak Forza war a bëriwaat ak Forza duggoon na faas neex la wul mu fas yéene faa duggaat Assane. Ndeye Mbaye Babacar euh, fa Pakala mi yàgg naa dugg Fass ndax avant Gris 2 demoon na Fass le 10 décembre boobu mu ngi fa daane woon booy Naar daane na fa également Forza comme ni nga ko waxee seen première comme seen premier combat le 4 avril 2012 mu daane woon ko euh, mais finalement Gris 2 moom moo ko stoppé Fass le 21 mars 2017 donc euh, prochainement mu war a dajeek waat Forza mi nga xam ne nii faas la nekk. muy noonu lëmbeef aussi Europe ba mu demee Gambie nag may Babacar dafa wàcc ci otoom di ndogu heure dog wàcc ci otoom di ndogu ndeke jakartaamaan yi xàmmee nan ko ràññee nan ko ba mu ndogoo ba noppi ba départ rek jakartaamaan yi escorté ko diggante Kaolack ba fa nga xamante ne bii mooy pont Serigne Bassirou Mbacke gunge ko di klaxonné di ko ndokkeel di ko jaajëfal ci ndam yu rëy yi nga xamante ne bii jëlee na ko bitim réew asal dëgg la Mbaye Babacar da doon jóge Dakar dem ah. mu dem ba Kaolack euh, xam naa ndogu fek ko fa mu wàcc benn station di jënd nga ko bi mu jënd nag xam naa la ko xale yi xàmmee di ko di ko wër ko euh, da accompagner ko ci station bi ba baa muy génn Kaolack avant muy dem nag remercier na leen jox leen xaalis avant que muy dal muy lu am solo te noonu nag ginnaaw ba Jamaïque nii ak ñoom ñooy des kii nga xam ne yow mooy Yassine Thiam mu ngi fii Dakar terrain gaal gi dimanche incha allah mbay baax dimanche le 16 la war a tëgg terrain gaal gi gannaaw ba mu tëggee ci àll bi àll bi fu ci nekk moom mii di Yass Santé Sarr tëgg na fa li nga xamante ne bii mooy làmb le 16 nag mu war a ñam fii ci terrain gaal bi Assane. gaal gi incha allah dëgg la Mbaye Babacar yàgg na tëgg Adrien Senghor yàgg na tëgg ci àll yi mais le 16 bii nag mi ngi jëm mooy dimanche bi ñu ñëw mi ngi jëm terrain gaal gi c' est la première fois mu fa tëgg depuis ba mu nekkee promoteur ba léegi ñu fàttali ne daaw bëggoon na fa tëgg à quelques jours de son gala euh, corona bi ñu reporté ko kon donc Yassine Yass Santé Sarr nga xam ne ni moom mooy doom ci Ambroise Sarr mu ngi jëm le 16 mai bi euh, terrain ak gaal gi mise bi 2 millions 500 la euh, mu nar a nekk gala gala am solo. ginnaaw ba ñuy xëccoo benn date nag kii Jamaïcain moom day confirmé li muy wax la mu wax mooy le 16 bokk ko kenn moom moo ko moom ndax li tax mu wax loolu mooy fi mu war a jaar yëpp jaar na fa li mu war a def yëpp. def na ko fay na li nga xamante ni bii moom mooy stade ba régulariser na date bi ba pare toog di xaar le 16 nag incha allah Matar ba ñëw mu fa yéene ko ndokkeel bu baax a baax ci boobu la journée. dëgg la Mbaye Babacar Jamaïcain remporte le 16 mai devant Jax ndax samedi bi passé Jamaïcain dafa dem euh, Kaolack. wala Fatick ba mu demee mu gis euh, président CRG bi fa nekk euh, wax ko euh, man yéeneem kooku nangul ko ko mu dem xooli directeur stade Massène Sène dem fay ko pour location le 16 mais bii di ñëw donc mën nañ ne Jamaïcain moom lépp luy administratif côté administratif réglé na ko ba pare day xaar le 16 rek pour mu tëgg gala. mu mel ni fu mu ne ah, agum leeragul de parce que Jax ba léegi bàyyiwul. bàyyi waaye di gën a leen uh, ñaanal jàmm ak salaam di ñaanal bu baax a baax a baax suñu mbokk internet yëpp yi nga xamante ne bii ñu ngi ñu doon topp ci Leewtoo TV wante di jaajëfal sama yaay sama xarit ma maman Yuma jàllo Diallo Jéeri Toro de Bourguédé nekk fële ca Diourbel école 9 saa su ne mu ñuy topp ci revue de l'arène bi nee na mi ngi lay nuyu yow Ndeye Mbacke ak Assane ak ak Assane Waalo di nuyu waa Leewtoo TV yëpp maman Yuma Diallo Diallo Jéeri dundal téeméeri at yu toftal ñaari fukki at ak juróom-ñeent ci barke Cheikh Ahmad Bamba. ñambaake ñuy fay kon donc sun mama yu ma jàll boobu di ko remercier bu baax a baax a baax di remercier également waa Linguère Yacine Fall équipe bu Leewtoo TV yëpp di leen jox mu ngi nag mama yu ma jàllo. jàllo jërëjëf ñu koy nuyu baax di ko ñaanal jàmm ju bari bari kon nag yokk ñaani bu baax a baax loolu moo nekkoon li gën a fës si boobu xibaar damay sant di gërëm sama cameraman bi Fama bég naa ci loolu Bilal léegi da ngay gis naa lépp maa ngi lay bu baax Bamba sama papa moom ko quoi je beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup asal waal ak mbay waa ko ñoo feggu loolu damay kontaan ci ñoom Yacine Fall ah damay dem ba administration rek fekk fa mag la plaignante moom plaignant la histoire bi la bari ah. mais non tey nag du plaignante de. ah tey jàmm laa moom yee eh, tey moom macha allah. mbay ko wax de ah. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Aïda Diouf sama séeréer bu ñaaw bi xeese booy kontaan naa ci yow lool ah sama lonko bi kebe bëgg naa ci yow sama maman nag. Adja Nafi Ndiaye ah sama xuloo waaye sax guddi ñu xuloo mais sama gain la ah, sama xarit la mu ngi noonu moom maa ne sama chauffeur bu ñaaw bi kooku mu ne ah, lu mu dawal lépp bëgguma ne ah, assurance 100% di kontaan ci moom loolu Mansour Fall sama caméraman bi dégg naa ci yow loolu loolu loolu dañ jox di dajal ëllëg incha allah ci Leewtoo TV